sunu gis-gis daal mooy soññ nit ñi ci li nga xam ni moo xew mooy nit ku nekk xam nga ni mbas mi dafa ñëw lëmbee àddina bi amul fenn fu mu bàyyi ci àddina su ko defee nag euh, feebar bu bu musa ñëw daj àddina bi yépp amul pexe bi ñu koy def bi ñuy def ba mu jógee fii lu dul vaccination loolu nag yàgg na ci àddina Ah, léegi nag ñu ngi ñaan comme ni ñu doon ñaanee population bu Bambey ñun ñëpp nañu wuy si sunu médecin chef ci district fii ci Bambey na ñëpp bàyyi xel ci vaccination bi ndax lay aar ba nga xam ni bu la mbas mi naroon a dal walla bu la dalee mu oyof kon kenn ku ne fa nga toogoon na ko yokk yow mii di jullit wala ngay leneen te yàlla itam jàppal na feebar bu ñu tudd am na te garab gu feebar bu ne it am na garab kon jàppal ne lii la indil moo lay faj ndax nit ki da gëm ndogal nun nag du nit doole ji dafa bëriwul kon teel a ñàkk ji moo gën faju ji ndax faju ji mënuñu ko kenn ku nekk xam na faju li nga xam ne moom lañ ci ñàkk kon kenn ku nekk na nga xoolaat ba ñu déglu kii wax nga xam ne da mel ni man amu xamul aani bee di wax waxam tegu ko fenn nga déglu ca loola loola bu mu yàq sama xel te booy faju ji kooku du la dimbali dërëm kon dem nanu dem ñekku ji te ñi mën a gën a mën a leeral leeral moo xam imaam la moo xam jàngalekat yi ci école bi la moo xam ñeneen la moo xam marché la fu waaye mën a leeral nga leeral la nit ñi ne danse amu ci bu nu ko defee rek incha allah yàlla ñu yàlla dim voilà appel bi benn la donc ñu delluwaat ci li nga xamante ni depuis le début ñu ngi ko daan wax di ñaax population bi ndax ñu dem euh, ñàkku ji voilà ni ñu ko waxee sànq ñu bari euh, amoon nañ ci ay xalaat ñu ragal moo taxoon ah bëgguñu woon dem parce que suñu seetaanee euh, réseaux sociaux yi ñu ngi gis ñu di def ay publicité donc ñi di farce ba finalement ñu xalaat ne ah lii kat suñ ko jëlee mbaa du ñu indi loraange moo taxoon ñu bari euh, ñu xalaat ne ah ñu ragal a dem.